Euh, asalaamaaleykum tey nag euh, ñu ngi fii ci euh, Bayaax voilà jàkkaarloog Yaay Fall Sonko moom lañ fi fekkoon ci meeting bi ñu ngi lay ziare. ñu ngi leen di delloo ziar. mbaa yaa ngi am tawfeex. waaw alhamdulilah. waaw tey nag dañoo ñëwoon fii di leen fekk si ngeen di féete seen 4 avril mu nekk benn feet boo xamante ne feet bu mucc ayib la naka ngeen ko dundee. waaw sant yàlla ginnaaw bu ñu sant yàlla jullu ci yonent bi sant suñu ñaari wayjur wa di sante Ousmane Sonko mu sel mi suñu jëwriñ bi ndax ciowli ciowli mom la moo tay ñi ne ñun suñu 4 avril ginaaw yalla def na ne suñu président jël na rew mi suñu candidat suñu président Bassirou Diomaye fay ñun li ñuy fête suñu 4 avril moy tay sargal Ousmane Sonko ñu and ko ak suñu frère euh, Ablaye mom mo indi won xalaat bu rafet bi macha allah ñun dogu lañ bëgg def mu ne mom sargal Ousmane sonk la bëgg ñu ne pourquoi pas ñu boole ko nekk benn ndax ndaw yu mel nii la Ousmane Sonko soxla. mais balaa ñuy ñëw foofu tey balaa ñuy ñëw foofu euh, jour victoire bi jour élection yi ngeen yëg na Bassirou Diomaye Faye gagné na jour boobu naka nga def. waaw xanaa kontaan kontaan di sant yàlla bu baax a baax a ndax liggéey rek a wóor liggéey rek a wóor euh, moo tax ndam ji bettuñu. ndax danoo liggéey waaw ñu bëri nag takkusaan bu ne kon nak ndag ndam mi ma sha allah alhamdullilah diko sante suñu borom bu baax a baax a euh tay ñi fété 4 avril ak Sénégal amna président bu bees comme ni ngeen ko souhaité muy Bassirou fay euh sans premier jour yi nga xamné mom lay tok ci bop réew mi tay bu doon changer dar dar dar dar lan ngay ñëk xalaat na yow lool lay changer waaw dundugu cher gi dundugu cher bi njabot di sonu nañu location bi metti na ndox mi cher na courant cher na mom dal dundu gi dal sénégalais mom ñëpp ñëpp mom la ni xaar dundu gu cher gi dal waaw. yo dal kon manam téméri fanam yimi tok yow so sañon dundu gi lay ñëk a bala dara di xew d'accord ak lan. waaw mu tegg justice bu leer nañ lool lañ bëgg kumba am nday kumba amul nday na fi joge bëgg nañ kenn ku ne nga sentir sa bop ci justice eh, bi sa kàddu gu mujj lan la xana di sant Ousmane Sonko suñu jëwriñ bi di ñaanal yalla yalla wu yalla guddal fanam di ñaanal Basiru yalla na yeen bi oyof ci kawam senegal yalla na nekk ci meilleur ci Afrique yal na Afrique yëpp yëpp yëpp yëpp di di roy ci Sénégal mais di copie ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye Ousmane daal dañ koy ñaanal yàlla jàmm ju bari ndax bu amee jàmm réew mi am jàmm moom la jeunesse bëgg. lan ngay conseil jeunesse bi. liggéey ñu jóg liggéey taw muy dox jeex na fi lu waaye mën na yëngatu rek na ko jàpp ba mu dëgër nga am ci fulla am ci fayda waaw jarta xeeb na ñëpp jóg liggéey. loolu lañu Ousmane woo ndax nee na ku loxoom set rek tal na la loxo ñun amuñu xaaj ak seen ku loxoom set rek na nga ñëw ñu liggéey liggéey lañu ñu waaw allah. macha allah ñu ngi lay jaajëf. merci beaucoup. jëwri ñi ngi lay jaajëfal ñu ngi lay bu baax a baax. Euh, tey Sénégal momat bopam ñi fété 64e indépendance Sénégal fête indépendance euh, naka nga dundee loolu. Ah, di nuyu ñep di len siyaar encore une fois. di content ci bëss bi parce que limu dajel la dafa ñëw tombeek euh, ñu am président bu bees mu nekk euh, un jeune président mu ñëw un andi espoir bu la ci jeunesse bi parce que buñu xolé jeunesse bi ñoko bokku nañ ci ñi ñi œuvrer pour que euh, victoire bi mëna am kon tay 4 avril bi dund nañ ko ak mbégte bu reuy am ci nak ak espoir bu parce que on a un président jeune le plus jeune président de l'histoire du Sénégal et même de l'Afrique waaw ah, contentement bu mag lañ si am vraiment di ñaan yàlla nag euh, yàlla suturaal ko dimbali ko appuyer ko surtout ak euh, jeunesse bi am aussi patience bu bari xam ni du doon lu yomb parce que dëkk bi dañoo ñëw fekk mu am jafe-jafe yu bari mu am ay ay ay difficulté yoo xamante ni war nañ koo defaraat euh, jëmmalaat institution yi ci biir réew mi ñu mën a ñu mën a ku ci nekk jàpp ci benn wàll ngir dëkk bi mën a naat. balaa ñuy dugg foofu sax jour élection yi. Euh, ngeen yek ne heure bi rek gaa jibile meni commencé jubilé melni da ngeen teeloon a xam sen ndam euh, jour bobu naka la def bi nga xamé né jamaay mo gagné. li ma njëkk impressionné waxtu bi ma bi ma gis nit ñi mobiliser wu lo xamante musta am ci biir réew mi déjà nit ñi dañoo xëdd rek dem école bi may yegg ci biir école bi ma gis samay moromi maam samay pap samay frère nit ñu bëri fees école ba déjà heure boobu rek wane woon na une fois li nga xamante ni mooy résultat yi ñu waroon na yi ñu naroon a am. parce que mobilisation bi nit ñi mobiliser au jour élection bi muy le 24 mars bi weesu muy dimanche bi wane woon na rek ni eh, nit ñi dañoo déterminé woon nit ñi dañoo paree woon ngir soppi li nga xamante ne moo fi nekkoon ndax euh, dëkk bi yàq woon na yàq boo xamante ne euh, yéemoon na ñëpp. léegi nag waxtu bi dafa jotoon ngir ku nekk jël ay responsabilité mu suñuy papa suñuy yaay ba ñun ñi ñi nga xamante ni dañoo am yaakaar bu rëy ci ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mi tànn kii di Bassirou Diomaye Faye te li nga xamante moo nekkoon suñu xol aussi euh, naxuñu ndax bi ñu demee ba ay 17 ba commencé dégg première tendance yi xam nañu ni kon vraiment yàlla suñu borom jàpp na ci ci mbir yi comme niñ ko doon yaakaaree vraiment. yàlla suñu borom jàpp na ci mbir yi Bassirou Diomaye fay nekk na président euh, tey lan nga xalaat fii ak 100 jours. mooy 3 mois 10 jours mu def ko ci bopp réew mi euh, bu doon soppi lan lay njëkk a soppi selon vous. man jàpp naa ni li mu war a njëkk a soppi mooy euh, jéem a jéem a jéem a xoolaat li nga xamante ni moom mooy institution yi institution yi nga xamante ni yu budgétivore yi maanaam yi nga xamante ni jëriñ ñu dara. tur bi moo fi nekk ak euh, xaalis bi ñu fay dugal lu bari di di di recalé recadré ñi nga xamante ne maanaam ñoo ñoo ñoo jàppoon ci combat ñeen ñenn ñi ngir ñu mën a falu jàpp naa ne ci cent premiers jours yi bu taxawalee gouvernement comme niñ ko nekk di xaar ci waxtu yi di ñëw jàpp naa ne loolu bokk na ci li njëkk li njëkk a jëmmal euh, premier point bi li ci topp mooy mu jàppale population bi ci wàllum dund gi ndax nit ñi dund gi moo leen gën a yitteel ndax am na kër yoo xamante ne bu ñu ndekkee duñu añ buñ añee ñenn ñi buñ añee du ñu reer kon président bi jàpp naa ne yooyu bokk na ci ponk yi mu war a njëkk a sukk euh, basé li nga xamante ne mooy politique am ngir mën a génnee population bi ci loolu xam nañ nag du doon lu yomb mais na ci ñëpp jàpp bu ci ñëpp jàppee am nañu yaakaar ni ah dina dina dina soppeeku même bu soppeekul à 100 pour cent lu bëri dina soppeeku ndax am yaakaar ci ki nga xamante ne moom lañ teg ci bopp réew mi ndax melul ni ñu fi nekkoon voilà am na loo xamante ni jaay nañu ko ñu gis ko ñu ñu topp Pastef depuis 2000 deux mille deux mille muy projet bi man projet bi maa ngi koy topp depuis deux mille seize. deux mille seize laa commencé topp Ousmane Sonko ba jonn yàlla tey. kon eh, dara eh, eh, dara beesul si man ci li nga xamantani mom lañu résultat biñu am tay ndax c'est un travail de un long processus bo xamantani ne ah euh, yag nañ ko tek di golu nak manipulation bu nek jot nañ ko wax bu nek jot nañ ko ah ñu japp rek xamni waji lim ñu tegal musul tergiverser ci li nga xamantani mom la tek ñu yag gëm lolu motax yalla sun borom fay ñu li nga xamantani moy gëm gëm gogu ñu am di ñaan yalla rek yalla bu yaakaar tas. yalla bu yaakaar tas jamaay indi na projet mook Sonko ko jeunesse bi jeunesse bi jënd nañ jeunesse di am ci président bi euh, jeunesse aussi yow am nga je pense bien. Mm-hmm. man conseil bi ma jox ndax man jeunesse ci jeunesse bi leen conseiller ñaari mbir am patience am patience xamni euh, dara son excellence te war na toog càmbaraat yenn dossiers yi xool li nga xamante ni moom mooy nan lay élaborer li nga xamante ni mooy politique bi mu andi moom ak euh, euh, suñu premier ministre bi mooy Ousmane Sonko na jeunesse bi boobu moo nekk première euh, suggestion bi may jox jeunesse bi maanaam ñu am patience xam ne mbir yi mbir du xëy rek sotti. ñu bañ a dit que la patience a toujours raison. forcément bu ñu daanu ci piège manipulateur yi maanaam ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ci yenn pôle de communication yi. ñu nekk ci yenn pôle de communication yi bëgg a manipuler li nga xamante ne mooy mooy jeunesse bi mais na gars yi góorgóorlu na population bi góorgóorlu xam ni dara du du du du xëyul sotti nañu gëm ni euh, projet la ñu àndi te projet dafa am un long processus na si nit ñi jàpp xam ni xëyul du xëy rek sotti li deuxième proposition bi may defal sama mbokku jeunesse bi mooy na nañu takku nañu takk dem jublu ci liggéey bi man maa ngi oo ñëpp toute la jeunesse nañu mobiliser wu. ñu ñu ñu ñu jàppale euh, son excellence Bassir Diomaye Diakhar Faye ngir mission bi nga xamantene mom la sénégalais teg ci loxom mu mën ko matal ñun ñun ñëpp nag. muy muy ñi nekk euh, ci yenn région yi manam ñu nekk ci pôle urbain ñu jëma gor gor ñu waccat sur les dans les bases waccat ci ci ci biir région yi ngir ñu songu mbay mi ndax mbay mi suñ ko réussiré dinañ waxtu waxu dund bi dinañ ko régler euh li nga xamantene moy problème mu xeymi dinañ ci wàññi même bu dee réglé wuñu lépp dina am lu bari lu mu ci wàññi ndax xam naa ne jeunesse bi rek moo mën a jàpp ci programme bi ngir mu mën a sotti te am nañu population boo xamante ne 70 pour cent population bi dafa jeune kon xam ah, kon am na loo xamante ne jeunesse boobu war nañ ko mën a apporter ci li nga xamante ni moom mooy avenir u Sénégal kon maa ngi ñaaxaat sama mbokk yi rek ñu gën a góorgóorlu xam ne dara xëyl sotti te mission bii nga xamante ni xeex nañ ba yegg tey fii tey la xeex bi gën a tàmbali tey lay gën a metti ndax liggéey bi léegi la doog a door comme ni ko Ousmane ko waxee ci euh, adresse bi mu def euh, keroog bi nga ko falee premier ministre ñu jéem a jàpp ci loolu te bu kenn yàkkamti bu kenn yàkkamti man gëm naa ni dinañ réussir mais nag du yomb du yomb mais na si ñëpp jàpp bu soobee yàlla avec l'effort de tout le monde on va réussir par la grâce de Dieu. Euh, ñu ngi lay jaajëfal sa kàddu gu mujj ah xana di len gëreum rek di len gëreum di len sante yeen ñi nga xamne da ngeen def déplacement euh, voilà gën ñew ñu ngi len di gëreum di len sante ci déplacement bi déjà ak euh, opportunité bi ngeen ñu may ngir ñu mëna a exprimer wu wax suñu mbokk yi wax sénégalais yi ah euh, initiative bi ñu def contane nañ torop si li ngeen xamne yeen ci ngeen ñew fekk di ñaan rek seen liggéey gëna jëm kanam li ngeen bëgg ngeen dem ba yegg ci place télévision yu magi fu nit ñi tollu ci aduna bi di leen dégg di leen gis ndax yeen fierté Sénégal ngeen fierté dëkk bi ngeen ñu ngeen di gërëm bu baax di leen sant. ñi ngi lay jaajeufal wa ma lay jaajeufal jaajeufal bu wër tay nak Sénégal di fété indépendance muy 4 avril euh, naka ngeen ko dundé wa contentement ak mbégte di ci and ak suñu président Bassirou Diomaye Diakhar fay di ci and ak le premier ministre Ousmane Sonko ak son gouvernement vraiment di am mbégte féké bëss bi té di ñaan yalla diko fété ay ati ati ati at voilà di ñaan yàlla diko ko ay ati ati at euh, dafa mel senegal Sénégal moomaat na boppam ndax Bassirou Diomaye Faye nekk ne président te ndaw yee ko fal tey lan ngay lan lan ngay xaar ci Bassirou Diomaye Faye en tant que jeune. waaw en tant que jeune nag li ñuy xaar ci moom dafa bari euh, comme ni ko di waxee dañoo yónnee yàqamti ñu quoi donc pour commencer dañuy commencer ci entreprise étrangère yi nga xam parce que ñun euh, Bayax mu ngi nekk ci dans la commune de Diender donc dafa am ay entreprise étrangère yoo xam dañ fiy nekk implanté wu fii di liggéeyloo ay doomu sénégalais. te ñun lén rek lañu yakkar ci état moy bo nekkee président bu féké nit ki manam xarul ci yow euh, dépense xarul ci yow location xarul ci yow dara ci lén rek la la yaakaar ci yow moy entreprise étrangère yooyu di implanté wu ci suñu réew fi nañu fexé ba ñun ñu sammu ñu ñun ñi di liggéey ci entreprise yooyu fexé ba ñun ñu mëna a duñu mëna fay lu lu li nga xamante manam tay bu féké né même sax dañ lay fay euh benn salaire bi dañu nga ci mën a suturaloo yow ak sa njaboot bu fekkee même da ngay fay location war cee jënd ceeb yëpp du doon problème ci yow donc ñun sénégalais loolu rek la ñuy xaar ci le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy mu dimbali ñu ba ci entreprise étrangère yooyu ñu mën ñoo jox suñu ak ak suñuy yelleef ñu am si suñuy embauchement bu ko defee kat ñun lenn rek bu boobaa moom li ñu doon xaar ci moom bu boobaa dina ko mottali parce que tamit di xëy di liggéey tamit te doo ci am dara tamit dafa neexul donc ci loolu la ñu koy ñaan mu jàppale ñu ci bu baax a baax a baax te aussi jandeer tamit dëkk la boo xamante ne dafa dafa nekk dëkku mbay parce que bu ñu nee jandeer moom mooy mbay kon donc war nañ ci jàppale ci agriculture bi ba ñu gën cee mën a avancer euh, pour am un Sénégal meilleur incha allah. Euh, am Sénégal meilleur tey président bi fal nañ ko euh, ci cent première jours yi maanaam ci trois mois dix jours bu doon soppi yow lan nga gis ne moom la ñu war a soppi daar daar lu urgent. waa nag li ñuy war a soppi mën naa ne ci daar daar bi nii xam nga tey nit ki mënoo koo fal ba pare di ko di ko di ko di ko tamit mënuñoo ne carrément que ni ñun ñii dañuy ñëw rek tey tey tey tey mu soppi lépp tey tey tey loolu mënut a nekk loolu moom ko ko wax day nax boppam quoi donc lenn rek la xaar ci moom mooy mu fexe ba dund bi mën a yomb nit ñi mën a euh, kii maanaam mën a seen dund mën a yomb lépp loo xamante ne nit ki mu ngi koy ut bu naam bu dee dem dem di jëndi wala muy dem di di peese ji wala muy dem di kii loolu mun a yomb ci moom maanaam denrées de première nécessité yi bu ko defee bu ko wàññee rek yaakaar naa ni dund Sénégalais dina gën a mun a yomb après nag ñu door a dem ci côté yeneen yeneen yeneen yi quoi voilà mais nag commencé ci daara de de première nécessité bi bu ko defee dund bi mën a yomb quoi parce que vraiment dund bi métti na. Euh, sànq laaj naa la ne la lan la jeunesse bi euh, di xaar ci Bassirou Diomaye Faye euh, mais it dinaa la laaj aussi Bassirou Diomaye fay lan lay xaar ci jeunesse bi. waaw jeunesse bi nag ñoo ko war a jàppale parce que tamit ñun ñoo ko fal wax dëgg yàlla ñun ñoo ko fal kon donc ñun ñoo war a góorgóorlu def ay effort parce que tamit nit ki doo ko fal ba pare après dañuy divertir ci yenn questions yi quoi. dañuy divertir parfois ci yenn questions yi donc moo tax ñun ñoo war a góorgóorlu ñun jeunesse bi te xam ne toog muy dox moo amatul léegi kenn ku ci nekk yow yaa war a takk sa ndigg fexé jàppale Bassirou Diomaye parce que parce que parce que tamit yeen ngi dafa dis quoi yeen ngi dafa metti té comme ko mu ngi nek ci premier mandat donc ñun ñëpp wara gor gorlu taxawu ko jàppale ko ba Sénégal mëna avancer quoi parce que Sénégal pour mu avancer ci ay domam lay juggé quoi du ay nit ñoy juggé bitim réew ñoo fi dañu ko avancer lo kon ñun ñoy def li nga xamantene mom lañu wara def pour mëna dëkk bi mëna avancer wax dëgg Yalla buñu défé dañu wara def rek moy japp ci combat bi kenn ku ci nek moy comme loxoy set Ousmane Sonko di wax na ñëpp japp ci liggéey bi loxoy di set ñukoy tek ci yoon kenn ku ci nek nek ci la nga wara a ne buñ ko defé rek wax deug yalla dekk bi dina avancer quoi bu boba mom dina xaar loolu ci ñun dina ko solo trop sa cadeau gu mu jël la. wa sama kàddu gi mujj moom euh, di gërëm initiative bi nga xamantene am nañ ko euh ndogu sargal Ousmane Sonko bi di ci gërëm ñep di ci euh, di rafetlu teway bi fi gaay tew yep wax deug yalla contane nañ trop ci bëss bi te di ñaan yalla nañu am ay bëss yu raw bëss bi waaw dina wax di wax ne nak aussi wa Bayax tamit lu mel nii dañ koo dañ koo dañ dafa yàgg fii quoi lu mel nii yàgg na fi donc dañuy ñaan mu gën a a continuer jëm kanam te aussi jeunesse bi gën am en entente pour euh, un Bayax meilleur du ma ne un Sénégal meilleur mais un Bayax meilleur quoi voilà ndax Bayax gox la ci Sénégal rek kon donc loolu la ñuy ñaan quoi ok di leen jaajëfal di leen jaajëfal bu wér a ok merci. Ah, soxna si ñu ngi lay jaajëfal. Ah, maa leen di maa leen di bu baax a baax. tey nag ñu ñëw fii si seen sargal ndogu Ousmane Sonko yi Sénégal tey moom boppam muy 4 avril ñu yàgg koo feete muy 64e édition tey ana naka ngeen jàngatee bés bi. ah rafet ak kontaan trop bés bi waaye ba ñu sañoon président bi jàppale ko euh, yenn bi oyof si kawam waaye tamit ma gëstu hôpital yi. ndax dee bi dafa bëri dialyse yi amuñu fu ñuy fajoo bu sañoo mu yokk hôpital yi yokk matériel yi yokk docteur yi maanaam yokk yeneen comme ni gox bayax yi yeneen village yooyu yokk ambulance yi fu ñu mën a fajoo yeneen dëkk yi mais dee bi dafa bëri torop torop si dëkk bi loolu lañu loolu lañ koy ñaan yan boobu lañ koy ñaan mu bàyyi ci xel baa ci xel bu baax a baax a baax hôpital yi ko xanaa bayaax fii nii ci wàllu santé seen wàllu wërgu-yaram hôpital yi daf fee xaw a sooxe waaw hôpital amul fi kii rek boo gisee boo xoolee benn kii rek moo fi nekk benn cité santé rek moo fi nekk voilà benn dispensaire bu ndaw moo fi nekk boo feebaree bay fa ñu évacuer dem ba kees te imaginer booy dem ba kees day xaaw xëccu ak malade day métti circulation bi demewul noonu moo tax dañu sañoon tey bayax am hôpital bu am tey ne bu ko defee sax boo feebaree sax mën nañ leen jël à charge bu ko defee doo mën a dem yeneen dëkk yi di façon day métti torop si ñun loolu lañ koy ñaan mu gëstu ci ci village yi bëri nga xam te ne dañuy am jafe-jafe hôpital yi bu ñu mën leen jàppale leen ñi dimbale leen loolu lañ ñaan président bi ñii fii euh, ñii bëgg a accoucher maanaam ñi nga xamante ne dañuy am doom mbaa duñ fii sonn torop ah dañ ci sonn waaye am na foo xamante ne fu ñuy rawalee fu met hôpital boobu am na fu ñuy rawalee foofu ay jigéen boo amee boo ëmbee ni da nga mën nga dem accoucher foofu waaye matériel yi demeewul noonu amuñu doole noonu doole boo demee ba sonn bàyyi ñu évacuer kees fa ñu évacuer kees loolu mooy problème bi dañu bëgg président mu gëstu si bu baax a baax a baax a ah, jafe-jafe ngeen amaat fii yoo xamante ne nii souligné wuñ ko. jafe-jafe bari na fi hôpital amu fi hôpital amu fi euh, euh, bay amu fi mayorul kii ndox mi problème la waaw am na fi am na fi courant bi tam demewu noonu demewu noonu yeneen maanaam demalante bi demewu noonu gis nga bayax mel changé benn yoon amul salle bam te xale mën nañ ci fooyee amul divertir amul dara maanaam fii rek may mooy bayax fii rek garage bi rek mooy bayax dañu sañoon daal bayax mu gën naat mu ëpp foofu ndax partisan yi na fii lool dañuy bëgg a jàppale président mu dem ci kanam moo tamit moo tamit fa mu jàppale askan bi mu am yërmande ci askan bi gestu askan bi lu ñu manqué loolu la ñu soxla ci moom tey. Euh, lan ngay ñaax euh, jeunesse su Bayaax jeunesse su Sénégal comme te am ñu président bu bees lan nga leen di lan nga leen di conseillé. conseil da benn la nañu toog ñu defal suñu réew mi toog defal suñu réew xam na président bu bees bi fa ñu jàppale ko ndax moom tam xale la fa ñu jàppale ko si wàllu doole bi wàllu liggéey bi waaw toog Sénégal xam ne lu ñu am xam na Sénégal moo ñu ko jaral ñu bañ a dugg si gaal yi gaal yi tamit fa ñu mu xool xale bu baax maanaam ku mën bugg a dem tukki lañ la may kayit nga tukki nga jaarale si anam yu wóor waaye bu dee dugg si gaal na gëstu tamit xale yi foofu tamit liggéey bi moom mu gëstu xale liggéey bi tamit am embauchement yi boo amee entreprise bu bi bitim réew ñëw entreprise embauché la fay la maanaam salaire ba am te yow mën nga toog Sénégal nga dundee ko dund sa njaboot voilà loolu laa koy ñaan sa kàddu gu mujj lan la. <laughs> ana jajeufal rek len remercier ya, seen déplacement dafa sori gis nga ñom ngeen bokk ci affaire yi merci beaucoup merci ana a rek kontaan wa ok merci. borom oh, xalat bu rafet ba ngeen ki moy lay ci shirt yi rafet yi ñu sol nii yëpp moo ñu ko defaral sha allah comme li la wax sànq ndaw yu mel ni la Ousmane soxla wa mo ngi non dal xalaat <laughs> mo suñu <laughs> frère baa ngi ma sha allah la ñu ngi lay jajeufal wa maa ngi leen nuyu. Eh, tay nak ñu ñëwoon fi ngeen def spécial ndogu. sargal Ousmane Sonko ci 4 avril bi naka ngeen ko dundee. waaw am si contentement bu baax a baax a baax baax di def euh, ndogu li moom euh, ndogu Sénégal yëpp la parce que buñ koy xalaat tamit euh, jëlal suñu njukkal Ousmane Sonko moo tax ñu xalaat ko bien vrai que nekkul président mais tamit lim liggéey si réew mi amul kenn ku koy fàtte fii Sénégal liggéey bi rafet na jàmbaar na te ñun tamit si moom rek la ñuy roy. Mhm. tey ñu gis ne euh, mobilisation bu mag bi yëpp nga ñëw jàpp ci en tant que jeune lan moo la animé. waaw waaw man moom ndaka jekk moom man ku ma xam moom xam ni si lii laay dox depuis bu ma nekkee beex ba léegi lépp lu tund jandeer liggéey lu yëngu rek man maa ngi sa biir di fi organiser yoo xamante ni bon néew ma kenn mënu ko fi organiser mais maa ngi def si tund bi loo xamante ni liggéey boo xamante nii euh, ñëpp teg nañ seen bët lii nag dafa tombe parce que lii la jomaay woote liggéey jàppale Sénégalais Euh, liggéey jubal jaamu yàlla loolu dong moo fi nekk. liggéey jubal jaamu yàlla moom la Diomaye euh, wax mais tey euh, cent jours yi njëkk yi muy toog ci gouvernement bi maanaam trois mois dix jours yi njëkk yi muy toog ci gouvernement bi tey bu doon soppi daar daar lu urgence tey yow lan nga bëgg mu soppi ko lu urgent. mooy dund rek li ñëpp di jooy moom mooy dund gu seer gi rek Sénégal neex na mën ngaa liggéey mais loolu liggéey da nga koy dépensé waaw man moom maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. mais nag dépense bi na trop waaw di ko mu jéem li gën a urgent moom mooy dund gi moom mu jéem see teg euh, def si def si kàttanam pour wàññi dundu Sénégalais yi loolu rek lañ koy sant fi mu toll nii pour l'instant. kon tey ana lan ngay ñaax ndaw gi ndaw gi nga xam ne ñoom ñoo fal président te président ñoom ñi ngi xaar président wàññi dund gi defar Sénégal mais président bi lan la war a mën a xaar ci ndaw ñi. li mu war a xaar ci ndaw mooy liggéey rek ndaw fi mu nii moom Sénégal moom li ñuy wax de amul amul amul woote. dabante mo am te président liggéey la wodé te ñun ñi ñu ngi si man euh, jeune entrepreneur la te tamit euh, man may man ma ñafeel sama bop ba créer luma créer créé yor naa ñaari entreprise benn mi ngi fi benn mi ngi noto Goudiama te yépp ay jeune ñoo si nekk damay former ay jeune dama leen wutal euh damay tamit yor na fi bla ba xamni damay former tamit ay ndaw yo xamni tamit si métier bu ma nek ci la leen former te tamit loolu la président bëgg te nit nak warut tok di xaar état état li mu mën accompagner ñu li am solo mooy ngay entreprendre mais Sénégal am na yu bëri yoo xam dañuy xaar te ndaw war xaar. ci entreprendre bëgg ñu dugg parce que da nga wax lu am solo mooy entreprendre gis nga jeune partenariat dafa tax euh, secteur euh, privé bi di dox. yow nag nga nekk ci benn di soog a jóg na la yàlla jàppale mais société yi naka la tudd ak naka nga def ba am ko loolu dama bëgg ñu ñëwaat ci tuuti parce que loolu daf maa xaw a rëcc. waaw loolu mooy man maay PDG Global Business Pip agence de communication la bu nekk fii si Bayax am na bu nekk Bayax am na bu nekk Noto bi nekk Bayax man maay PDG bi beneen bi nekk Noto sam beneen frère moo si nekk muy Gadou Diop mooy PDG bi. Euh, man nag dama am dama teel a xam entreprendre luy entreprendre parce que depuis may am bac. la dem université garçon Berger def 3 ans mais sumay jang limay chaque année sumay jang jàng bi école tej damay mise en jour sama bopp xool li ma ba xam ëllëg fuma may mais bima dem ba xamni man limay jang ni nii sir a soit damay dem di wuti liguey léegi ma teel a xam sama bopp am metti am lu am lu ma man ma dem euh, topi lolu di juk ay 3 heures ma teel laa doon jug di liguey di dem fi ba Dakar di sax xam-xam xam entreprendre yombul parce que entrepreneur limi mu laaj moy patience té ndaw Sénégal légui amuñu patience té lool moy entrepreneur patience mo entrepreneur entrepreneur da ngay jug rek dem ni tag rek ni fi la bëgg am fi la bëgg ag àgg dama eh, fay àgg tay tay tay loolu mënta nek nit da ngay patient so patient wé lepp lu la yalla may lepp loy classé bop patience mo la koy may té ndaw warta euh di jël ben exemple rek ci jomay fay parce que jomay fay bi mi bi mi tok TFM doon wax ak Birima Birima di ko minimiser mu ni yow xomo état te boobu Diomaye Faye 38 ans la mu ne ko feeg ma am 44 ans man dama am mandat deux mandats mais loolu patience moo ko may patience moo ko mais ndaw yi nag maa ngi leen di ñaax ñu am patience nangoo wuti xam-xam xam-xam mooy nit xam-xam mooy ndaw mooy nit parce que xam-xam si bopp lay nekk te xam-xam boo ko am rek ñàkkoo dara. Mm-hmm. global business pip uh, moom ci lan ak lan la yëngu nga gën ma ko leeralal ci yan lan ak lan ngeen yëngu. waaw global business agence de communication la buy liggéey di impress di di imprimer surtout support de communication maanaam yi ngeen gis nii ñu ñoo koy defar tiset yi bâche numérique yi sachet de mariage yeeg lépp la ñuy def impression numérique la ñuy def. te tamit euh, tund jandeer bi ñëpp xam nañ fi parce que tamit dama am ay partenaires yoo xam ne nekkuñu fii. am na ay partenaires yu nekk tund Noto Goudiaba am na ay partenaires yu nekk fii ñu koy wax Frézen ñooy samay partenaire la maa ngi ñoom dañuy liggéey. Mhm. Euh, tey lan ngay ñaax lan ngay lan ngay conseil jeunesse bi. jeunesse bi mooy ñu takk seen tubay dugg si àll bi nangoo liggéey liggéey dong laa leen di sant ak koo fu mu nekk foo mënti nekk ak wàll boo mënti nekk liggéey mooy dëgg mooy njëkk. te mooy mujj maa leen ñaan ñëpp ñu génn dugg si terrain bi wuti liggéey wuti xam-xam. Mhm. macha allah euh, ndax mun nga ñoo fàttali tur bi nga jox ñu sa numéro téléphone ba nga xamante ne dafa mel ni mooy affiché nii sax voilà euh, nga fàttali ñu tur bi. man la Abdoulaye Diop euh, nekk fii si Bayax yor benn agence de communication suñu numéro téléphone mooy 77 829 88 79. seen kàddu gu mujj. di kontaan trop si jeunesse su di kontaan trop si patriote yëpp di kontaan trop si président Diomaye fay mhm. ah, waaw lu mu wax rek di kontaan ci Bassirou Diomaye Faye eh, di kontaan ci Ousmane Sonko ndax ñun njàmbaar gi ñu nekkee rek ci Ousmane lañ ko lañ ko taataanee moo nu won ne doo yàkkamti doo découragé da ngay bëgg sa réew. waaw moo taxit ñun daal Ousmane daal mooy suñu lépp man mooy sama sëriñ ci moom laa jébbalu bañ naa ko moom la maa ngi woowee sama bopp yaay Fall Sonko man daal liggéeyam rek laa nekk waaw yoon bi mu xàll daal fa teg sama tànk te loolu laay woo sama mbokk jigéen ñi ñëpp nañu jóg takk seen i sër ba mu dëgër président Diomaye nee na liggéey la woote Ousmane Sonko nee liggéey la woote ku loxoom set na nga ñëw ñu liggéey macha allah. Sénégal ñoo ko bokk ñëpp a bokk ndey ak baay nañu ñoo ñu liggéey rek xéewal dina am incha allah waaw merci beaucoup. <laughs> ñun la waa Pastef Bayar. victoire bi euh, ni ñu koy dundee xanaa mbégte waaw di ko ñaanal mu jikko lool euh, changement bi ñu bëgg ci euh, réew mi mu àggaleel ñu ko léegi naka nga gisee tey 4 avril fête indépendance ni di fête indépendance président bu bees. waaw ah, lépp la mbégte ñuy euh, fête suñu indépendance ak président bu bees malgré fête ñu ko comme euh, ni mu waree woon mais tamit am nañu mbégte bi ñu amee président bu bees.

delluwaat ziar bu bëree bëri. Ah, waaw di nuyuwaat ñëpp man la Pape Amadou Gueye coordonnateur cellule bu Bayax. waaw di santaat sunu borom bu baax a baax a baax di ko santaat tamit bu baax a baax a baax a baax di santaat tamit taxawaayu sénégalais bu baax a baax a baax. aussi tamit euh, laata ñuy wax victoire fa mu jaar ba egsi fii yëpp dañ ciy jaaraat tuuti xaw xaw ci fàttaliku. ci ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ak ñi nga xamante ni caabi jotoon na leen féete ginnaaw ndokkee ci sénégalais yi nga xamante ni xaar nañ ci seen tànk tubéy ba tax ñu agsi fii tey waaw mbégte rek mbégte gu yaatu lañ ci am mbégte gu yaatu lañ ci am ànd ak son excellence euh, Bassirou Diakhar Faye di euh, ndokkeelaat bu baax a baax di ñaan yàlla woyofal ko yan gi mu ànd ko ak sénégalais yëpp tamit mbébét yeeg yéene yëpp suñu borom mottali ko defañu ñu si lu wees suñu njort. Bassirou duñu xaar dara ci moom euh, président duñu xaar dara ci moom lépp dañ ko ciy gunge parce que lépp rek sénégalais bu nekk am na waat bu mu ci war a bay n'est-ce pas kon donc euh, ñoo ci ànd rek ñun ñëpp gunge ko ci liggéey bi tamit. waaw santaat sénégalais yi bu baax a baax a baax santaat tamit euh, mbokki bayax bu baax mbokki tundu jandeer ñu santaat leen tamit bu baax a baax a baax a baax particulièrement la cellule Pastef de bayax ñu leen di santaat tamit bu baax a baax a baax waaw delloo ziar ah, man la Abdoulaye Diallo Wade maa ngi nekk membre Pastef Kër Sega nekk aussi membre de la coalition Diomaye président à Kër tey maa ngi teewoon bis bi fii Bayakh ñu def ndogu patriotique pour waa Pastef bi waa Pastef Bayakh organisé ma koy rafetlu di rafetlu taxawaay bi ndax ñoom xam nañ tey jii nii enjeu yi te xam na fan lañ war a jëm wàllum solidarité te wàllu avant solidarité bi tamit tey jii nii maam xeex nañ xeex boo xamante ni métti na bañ nekkee à l'opposition ba tey jii ñu ñëw jël jël pouvoir bi tey jii nii ñoom xam nañ li nga xamante ni tey jii nii foofu la ñu suñu président woo d'après discours démbam bi tey jii nii woote na maanaam à l'unité à l'unité ak cohésion sociale ba loolu noonu tey jii nii waa Pastef Bayakh ñoom ñoo ngi koy doxal di remercier ami membre de la coalition Diomaye président ici à Bayakh moom moo ma invité tey ma woon bis bi di leen remercier bu baax nag di di kontaan tey jii nii si taxawaay bi ndax ñëpp kontaan nañ ñëpp rafet nañ tey jii boo gisee bayaax dëkk bu doy nii nga ñëw ba si biir garage nga jël ay ndogu def ko gratuitement may leen ko ñoom ñëpp jox ko askan bi loolu noonu c'est à saluer te gis nañ ko tamit si wàllum set setal yeeg si loolu ñoonu yëpp jeunesse bi di nañ taxaw pour daal di jàppale la président Diomaye Faye et le premier ministre Seydina Ousmane ko te loolu ñuy xaar si ñoom ñu taxaw taxawaayu sentinelle taxaw taxawaayu sentinelle daal di jàppale askan bi parce que réew du benn nit moo koy doxal te du benn groupe moo koy doxal ñun ñëpp ñooy àndandoo booloo daa daal defal loolu noonu te tey jii ne taxawaayu waa Pastef Bayakh loolu noonu c'est à saluer te war nañ leen jàppale te war nañ see continuer ba beneen bis yeneen yëpp coalition yëpp daal di mën a jàpp si ñoom Sénégal jëm sa kanam waaw Euh, coalition a président Diomaye Faye président ak gouvernement am ñoo ngi xaar si ñoom comme li ñu woote le projet projet bi nga xamante ni moom lañ porté pour sénégalais yi ba jeunesse yi topp leen sénégalais yu bëri daal leen jox bopp daal di leen topp ba nga xamante ni bañ demee ba nga xamante ni Ousmane Sonko mi nga xamante ni moom moo nekkoon le porteur di projet mënut a nekk mënut a wu mu daal di yabal Diomaye fay tey jii nii ñoo ngi xaar si lépp li nga xamante ni li ñëpp bokk ñëpp daal siy bokk jot. Sénégal dem si taat si si si ñetti dee yi nii jub jubal ak jubbanti ñu xeex la corruption loolu maam askan Sénégal lu mu tuutee nii pour mu mën a avancer lenn kese laa xamante ni maanaam loo xam ne moo ko mun a téye parce que corruption mënut a dox ab réew te ñëpp gis nañ ni maanaam la corruption c'est à l'œil nu ici au Sénégal te loolu noonu bu ko xeexee rek tey jii nii ba pare da indi maanaam justice bi nga xamante ni dañ koy manipuler yooyu noonu yëpp buñ ko xeexee tey jii nii mën naa ne Sénégal mën naa jëm si tànku tànku kanam projet boobu noonu nga xam ne Ousmane Sonko moom la ñu jaay moom lañ koy xaar mu daal di koy doxal ah sama cadre bu mujj moom mooy maa ngi remercier membre Pastef bayaax yëpp di remercier aussi la coalition Diomaye présidente ici à Bayakh ah, di leen sant di leen gërëm di rafetlu tey taxawaay bi tey feetu ndogu bi nga xamante ni feete naa ko fi bokk kaag ñoom parce que ay ami patriote lañ ay amis patriotes lañ di leen naan nag nañ gën a jàppale projet bi gën a jàppale la président ñun ñëpp àndandoo defar le Sénégal one love. man la Matar Diakhoumpa chargé de la communication Pastef euh, Bayax ñëwoon tey pour waxtaan ak yéen ci journée tey bi mu nekk ko benn journée boo xamante ni sargal Ousmane Sonko la woon ñu bokk ak global business depuis boobu léegi nag ñu ciy liggéey ba tey daal ñu ne daal nañ ko jëmmal la 4 avril bi. jéem a def ay ndogu fii ci biir Baya pour séddale ko askan wi mu nekk loo xamante ni ñun ñëpp dañu koy rafet rafetlu vraiment kontaan ci bis bu baax ak ni mu demee lii nag dafa nekk loo xam ne dañ ko doon xaar boobu ba léegi parce que dama ne nit kat bu ñu koy sargal dañ koy sargal bi mu fiy nekk te ndaga Ousmane Sonko ñu jàpp nañ ne depuis le début 2014 ba léegi vraiment tey la ñu yàlla a jox ndam kon donc jot na lépp loo xamante ni defoon na ko bi ñu sargal ko kon ci ndam loolu ñu am tey muy ñu def la tout ba Bassirou Diomaye Faye nekk tey président de la République du Sénégal ñun ñëpp ñu gis ko te loolu ndaw ñu bëgg yàggoon a bëgg yàlla defal ñu ko kon teykat kat ñun waa Bayax cellule Bayax ñu ne kon kat nañ def kon sargal Ousmane Sonko moo waral bis bi tey ñu taxawaay taxawaay bi ngeen fi gis tey. président Diomaye ñun li ñuy xaar ci mom moy dafa am lo xam ñun ak moom ñoo ko parce que le président Sonko dañ nako wax il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse c'est quoi c'est le projet ñu tek ko ci table ji loolu mo taxoon ñuy ray don de soi bi ngay gis moy kenn ku nekk ci ñun man sama ñak laay jël di ci def t-shirt su ma ko bëggee maa koy jënd tay bu nee balé man may jog genn parce que xam lu tax parce que patriotisme bi la et puis dafa am lo xamante mo ñu lié loolu nak tay nak ndagam ñom la yalla jox ndombal tank bi loolu nag nañuy xaar si ñoom pour ñu matale ko Bassirou Diomaye Faye liñ ko xamal man mooy depuis 15 ans wala mu ëpp ko mook Sonko kenn musu ko gis ñu ne jël na alalu jàmbur wala na def na naka sudul noonu te jàpp naa ne nag am na sax lu ñuy wax sax naan Sonko wala Diomaye musu ñoo bokk si benn gouvernement wala musu ñoo am yenn yenn poste de responsabilité mën na leen am réew xamal la moo ko yor mooy jub ak jubal man jàpp naa ne lii si ku mu nekk réew mun la mënti jox war nga kaa mën a doxal man loolu mooy sama gëm-gëm gawma ñu jox la ay poste responsable ministre wala dara nga nekkon ci ben ben état tay nga ñew wara nek président man gawma lool lima gëm moy nit ki jup bu ko defee rek té sénégal japp na na tay liñu tardel loolu ci la bok manam li ñepp bok ñepp jot ñun lool moo ñu tardel mo fi amul woon té tay ndagam initiative bobu la basiru le président basirou jomay fay indi pour jubal ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci kon loolu kon dama ngay contane te et puis loolu lañuy xaar ci mom te yalla bu yaakaar tass sama kàddu gu mujj mooy di lu di di di jaajëfal sénégalais yëpp si élire bi ñu élire le président de la république au premier tour loolu dañ koy rafetlu parce que loolu lañ doon xaar ñoom di leen wax gàcce ngaalaama di leen wax tamit liggéey bi day doo ko commencé liggéey bi tey lay doog a commencé li weesu weesu na mais tey la liggéey bi di ko commencé ñu àndandoo ko nag Bassirou ndagam ñu ñoo ko fal ma ne nañ ko àndandoo gunge ko jàppale ko ci liggéey bi toog di ko diglu man la maam say dëkk Bayax dama nekk buuse laa nag xam na damay jaay yàpp waaye man moom sama xol bi yëpp ak sama jëmm ñëpp sonk kese bëgguma kenn ku du sonk lu ma am lu mu am ak lu ma amul yëpp sonk moo ko war jëmm ji daa sonk kese la ginnaaw yàlla sonk rek. loo ah, waaw dëgg la. loolu moo kaar bi moom neex na trop waaw ñun ñu nekkal fi Sonko danoo waxoon 4 avril bii di ñëw da koy def ay ndog ñun ñëpp ñu mën a cotiser joxe dimbale joxe yëpp pour wàllu Sonko boo tax ñu koy bi moom Diomaye mooy Sonko Sonko moom mooy Diomaye avant kii bi sax ñuy wër sax man moom fu ma taxaw dama koy wax Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko ku nu mën a wotal waat jomaay yëpp sonk moo ko man moom ginnaaw yàlla yonente bi Sonko jomaay jomaay Sonko président bi neex na trop taw justice Issa ay président xale na wax xale ñun nekk ay waar xale lanu ay jeune nanu waare tey jii kon tey ji tey bis bu ko soog dégg tey Issa yi moom mooy kon tey nan wàññi dund bi rek dund bi nan ko wàññi ceeb diwlin deuxièmement bi ñun waa bayax moom amuñu kenn Issa ñun fu nu fu nu sës ginnaaw yàlla yonte moom bis bu ñu déggee moom mën nañu dimbal ñun waa bayax jëni bayax liggéey ba nef dara waa léegi nii Issa waa ñun ñi dëkk bayax moom kenn waa liggéey bi pare boo xoolee ah dëgg daal na ñëpp ànd ak muy dëgg lu ñuy xeex suba ba ngoon jot pour waa Sénégal yëpp la bu ñuy xeex ñun ñëpp ay bool a xeex ñun jeunes xale yi mag ndaw ñun ñëpp ay xeex suñu waajur yëpp la doon xeex premièrement bu bis bu xale yi waxee sonk sonk c'est le mujj bi suñuy waajur yi ak suñuy waa kilifa yi yëpp ñëpp ñëpp waa topp suñuy waa ginnaaw ñëpp ne sonk kon nag boo dëgg yàlla ginnaaw yàlla moom sonk moom mën na noo seetlu pour pour waa comme tey waa jeunes yi mën a am liggéey liggéey mën a dox projet yi ñu waxoon yëpp soo ko waat nañ si jaar bis buñ ko defee moom bu sooba yàlla ñun moom moom rek moom lañu ànd ku fi toogoon def fi dara pare boo xoolee bayax moom mënu avancé bis boo bëggee ndox dayay fay cent cent trente cinq mille ñun kër mooy soog am ndox poto yi man mi di wax yow am naa sama kër cinq ans man mënumaa am courant te loolu ndox moom cent trente mille la laaj ndox boo amul cent trente mille si ay teen ñun moom lañuy naane te loolu jaaduwul nanu na ñëpp rek moom mu nekk benn ah sama sama kàddu bu mujj moom moom mooy ñun waa Bayax ak tund bi yëpp nanu boole yëpp ñu nekk benn man lu ma doon wax ba njëkk ba rek nee leen nanu boole yëpp ñu nekk benn Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko suñuy xol ak suñuy jëmm ak suñuy xalaat yëpp Sonko a ak Jomaay ginnaaw yàlla waaw yéen ñëpp maa ngi sant nag tawaat man moom moom man maa leen gërëm bu baax waaw. waaw jërëjëf maanaam man dinaa ci wax mais li ma ci wax bariwul ndax kii daanaka wax na lépp ñun danoo yàggati xeexal fii ah, projet bi. bi ñu gisee projet bi xool ñi koy doxal xam nañ ne ñii jub rek la am ndax xëj na toppoon nañu leen ba tëj leen waaye képp kuy dox ci senegal képp kuy dox ci tund bii xam nañ ne ñii dañ leen tëj tëj leen ci loo xamante ne nii yanuwul maanaa ñoom fi ñu jaar ba egsi fi ñu egsi kenn mënu leen tuumaal ci dara kon ku sañ a taxaw ne état bi mënu ma topp 5000 te état bi mënu mënu leen topp ci dara ñun. wóolu nañ leen ñoom nanu gérer seen société ba nekk fii te kenn mënu leen topp ci dara xam nañ ne noonu la war a mën a yoree état bi ëllëg kon état bi ñun kuy gis loo xamante ne nii da nga ko yor ci loo xamante ne nii du am benn caaxaan du am ci loo xamante ne nii benn benn benn benn kii euh, mbuxum ñun loolu la ñu àndal da nga ko yor seelal ko mu feeñ ci ci askan wi bu feeñ par exemple ñu ngi wax alal dina génn alal dina génn fi mu doon gën a yombe tey ana ñu ne kuy dem hôpital léegi dootoo daggati ticket bu ñu la bindalee ordonnance wala leneen nga débrouiller jënd ko mais tey ci li ñu woote nii di ko joxe xaalis ba nu yàq ci campagne bi da ngay taxaw fii ñu ne la kaay tiset ak ak cap 5000 tiset ak cap 10 000 nga dugg ci oto yi xale yu bari danoo dugg ci oto yi génnuñu sax un kilomètre ñu ne ñu wàcce leen ñu may nu fii ñun dañuy lekk seen alal parce que li ngeen di pasar pasaree di ko yàq ñun ñoo ko moom léegi li ñuy pasar pasaree di ko yàq buñ jëloon teg ko ci hôpitaux yi ñu ne kuy dem kuy dem hôpital bo démé hôpital do désormais léegi kenn dootul dagati ticket nga dem buñ la visiter nga jënd say ordonnance jënd say lépp mu yëm ci askan wi gis nga alalu askan boko ko dang koy def mu yëm ci askan wi mu yëm ci askan wi moy manam tay ji lu mëna génn lu ne ñu war ko pasar passeré mu yaq ci alal bi ci àll bi nam ko yëmalé ci nit ñi xaj na ci nit ñi loolu du dara li ñu def ci campagne bi rek buñ ko yefoon ci nit ñi rek Sénégal neex lool mo tax ñu ñu ñu ñu taxaw ñafé ba mu gagné ndi projet bi ak lañu ko waxé ñu teug ko mu dem noonu yem ci askan bi kon Sénégal neex kenn dootu fi am problème gañi di dugg ci gaal yi di génn di dem dañoo frustré dañoo son parce que tay da ngay and ak nit mu sonn ba bëgg a nit ki daal di génn même pas un an même pas deux ans mu réaliser loo xam ne yow yaa ngi fii di sonn ba bëgg a dee dara am moo tax gaa yi di dugg ci di dem ci gaal yi nan nu jàppale comme li nu wax ci projet bi ñëpp dégg ko ay kilifa ñoo ne fi ñoo xam ne soxlaaluñu alalu nguur gi dara nan ko jëfe noonu j'ai ko la sobriété ku nek am la wara am Sénégal jëm kanam affaire bi bon 100 premiers jours parce que damay dégg adage buy wax ne ci wolof yakamti yakulé 100 premiers jours man fima koy tek ci sama jëmmi bop dama ko tek ci ño organiser base parce que garab boo ko sampee il faut nga xaar ba reen yi taxaw mu mën a jébbi cent cent premiers jours yi pour man garab gu ñu samp la nanu bàyyi ba reen yi jàpp bu reen yi jàppee feuilles yi mën a jóg ñu développé cent premiers jours man bu dee pour man la muñal naa leen ñu teg seen i chantier teg seen i taxawal affaire yi ba reen yi samp ñu développé loolu daal laa leen di kii yoon ah kàddu gu mujj gi ah, xanaa bu dee ñun ñëpp gëm nañu ci yàlla ah nanu gëm rek la ñuy wax xam ne Euh, Sénégal xam nga man bu musuma voyager mais ni tubaab yi di doxale amul dara lu lëndëm te foofu la ñu jëm dara dootul lëndëm fii ci Sénégal lépp dañ koy teg mu leer mu bañ a ump benn sénégalais même xale bu ndaw bii mu xam ne tey jii sama papa fa muy liggéeyee wala nii fa muy defee nii lépp leer na parce que bu lëndëm bu lëndëm amee rek ñagas-ñagas am rek loolu day tax affaire yi nërmeelu mais bu lépp leer yi koo gis mu ragal rek kumpa lay ragal. waaye bu ko leeree dootu ragal kon na ñëpp nañu ko leeral ñëpp comme nañu koy waxee mu mu yomb ci sénégalais ndax xam naa ne bu leeree ah mën nañ fi nekk ba heure bu leen neex kenn du ñu ña kii ak kii mais nag ñu bañ a déglu ñii di jaxase parce que jaxasekat yi ñëw na buñ gisee ñaan ñu ànd ñu baax ñu ngi seet fu ñu leen mën a jaxasee waaw waaw ce que Sonko du dema du dem fii jëm boppam waaw waaw est-ce que est-ce que jumaay du ut ay nitam jëm boppam waaw waaw buñ dawalee fii nangam nag jàmm dong la ñuy am Budaya nyom ñoom ñoo anda a ànd ci ba muy mitti estomac ba muy neex bu miti ngeen ànd bu neexee da ngeen wara a kon na leen constitution bi wax ñu seet ñeneen ñoo xam ne ni ñu ko digalee ci Pastef mooy way ba abada jërë ngeen jëf voilà tay nag euh, ñu ngi fi ci bayaax euh, taxaw ak ben jeune économiste euh, koo xamante ne ko xarañ na ci wàllu économie tay ñu ci sargal spécial ndogu sargal Ousmane Sonko tay naka ngeen dundee 4 avril bi waaw salaamaaleykum maa leen di leen jaajëfal ci ñew bi ngeen ñew fekk ci waat ñu fi ndax ñëwoon ngeen ci campagne bi jëlon ñu après ngeen jiñ ñu tamit ah, ñu am résultat bu am solo waaw tay mom ni ñu affaire manam maanaam la mu tombé ci weeru communion weeru koor weeru partage ak weeru jappalanté ñu ni nak comme nga ñun ak ñëpp ñoko andon ci porte à porte ci divulguer programme bi ci jéem convaincre et tout tay nak day jaadu ñu bokkat ko ak askan woowu ndax victoire bi du victoire u Pastef du victoire u Awalé mais victoire peuple sénégalaise la parce ñoom ñoo a wane maturité wane benn engagement bi nga am na ndax tey jii nous étions les risées de l'Afrique ah. ñëpp ñu ngi doon taxaw di ñu xaar mais wax dëgg fa yàlla ñëpp am nañ ci satisfaction donc moo te waraloon ñu ne nañ organiser ndogu bi mu nekk li nga xamante ni dañ koy partager ak sunu askan daal ndax noonu la demee. tey bu ma la doon laaj euh, Sonko. Euh, fii ak 3 mois 10 jours muy sànci 100 jours yi mu war a def ci bopp réew mi euh, bu doon euh, soppi benn affaire daar daar daar pour yow lan la war a mën a doon. waaw ah, man moom bu fekkoon benn affaire bu ma koy dëggal maanaam évasion fiscale laa koy wax ndax tey ñëpp xam nañ ni dafa bëri ay entreprises yi nga xamante ay multinationales la ñu nekk Sénégal yi nga xam dañ a baal lu ëpp ci impôt te loolu tey ji am na fu mu fu mu xajoon ci askan wi tey ji bu ñu mënee jouer ci loolu loolu doon sur la lande administrative ndax Sénégal ñëpp xam nañ démb le président son excellence Bassirou Diomaye jahar fay mi ngi koy wax out fi kay dafa metti da ngay gis ku juddo Tamba deuk Dakar wara out casier passer Dakar ba Tamba mais wax deug fa yalla avec la digitalisation lolu war nañ ci mëna taxaw té am nañ ci yaakar ndax démb le président son excellence monsieur Bassirou Diomaye jahar fay lancé na les défis des grands chantiers mu wara don na li la ñun les jeunes ñoo ci approprier wu ndax askan buñ ko bëggee doxal ay jeunes la Mao daf doon wax ni bu la Chine dafa dañuy jur mun un enfant qui naît c'est un bouche à nourrir mais deux bras pour travailler. Si nous parvenions à travailler durement, ardument, donc nous pouvons aller plus loin. Et c'est-à-dire nous, nous devons être le tête de peloton. Nous lol de notre caractère, mais de notre patriotisme. ce lol nous donnons notre engagement la inshallah, accompagner le président accompagner ci les membres du gouvernement liggéey ci bu baax ba inshallah jeunesse bi mobilisé na mobilisé di xaar président bi pour mu défar Sénégal mais président bi lan lay xaar ci jeunesse bi. Oh, président bi lan lay xaar ci jeunesse un jeunesse engagée. parce que damay wax tout le temps dañ nan le problème du chômage le problème mais le problème du chômage ben problème la. problème bi du formation du formation cassée. mais il faut aussi tamit nga nga opérationnel l' opérationnalisation de la jeunesse la ñuy xaar maanaam tey jii mun naa nekk un économiste mais il faut être un pratiquant mun naa nekk benn suuder mais il faut être un pratiquant c'est-à-dire affaire waratul yam ci ay kayit kase waratul yam ci ay wax kase il faut dorénavant ñun ñu impliqué wu cest à ñu bañ koo bàyyee su suñu maam yi dama koy wax tout le temps bu nee ma paa yi fi nekkoon ci nguuru Senghor rek léegi ba xam même diplôme la man la non peut-être ñoom ay diplôme yu extraordinaire la am mais ëppuñ ñu xam-xam maintenant ne lenn mooy waral jeunesse bi lenn la président di xaar si ñoom mooy man mu sama morom nañ liggéey c'est-à-dire toog di xaar buñ toog di xeeb nañ liggéey liggéey bi buñ mënee am benn journée ñu dem defi ji ko ñëw jéem a xool nuñ koy defee ci auto entrepreneuriat ndax réew loola koy doxal réew du ay salaire kese koy doxal certes ay salaire ay charge la yoo xam état da koy supporter mais auto entrepreneuriat bu ko état doolelee dinañ mën a créer ay emploi mën a jàppale suñuy mën a mën a jàppale suñu askan te aussi di ci woo waa localité bi aussi tamit jeune baax yi jeune localité bi yëpp ñu ñëw ñu liggéey suñu suñu dëkk parce que gis nañ ne depuis des années Bayax changé wul sunu maamaat yi ñu deewoon boo yeewoon ci armée ñu dox dem seen kër parce que dara changé wul maintenant nag dafa jot tay ji ñun jeunesse bi yépp ñu takku taxaw tek les projets qu'il faut impliquer wu liggéey ci ba changer suñu dëkk changer suñu réew donc buñ ko commencé ci local day day mëna dem au niveau national donc côté boobu mom ñi ngi wo jeunesse bi yépp aussi tamit di leen di leen remercier di kontaan ci ñëw bi ngeen fi ñëw ndax yeen mom yéen a ngi def liggéey bu am solo bu mucc ayib ci média day ñaanal affaire